أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه وإنني باسم مولانا العلي الأزلي أبدأ نظمي هذا تيكونيان ممتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي من سن بمختار كبي تواون مالين دي جوخ رانديفو bis bu nekk incha allahu tabaraka wa taala ci mbaaxu yàlla di ko ñaan mu dimbaleen ci ci diggante juróom-ñeenti waxtu ak genn wàll jëm fukki waxtu ci suba ci seen émission bu ñuy tuddee albayaan muy waxtaan yoo xam ne laayenti biir la ci wàllu suñu diine ak itam wàllu naka lañ ko war a dunde ci biir penc mi ci rafetal jikko yi ci jéem a ànd ànd bu rafet waaye nag lépp itam ñu jéem ko tànqe ci téere suñu borom bi alquranul karim ak waxi sang bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam ak waxi borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko fi wuutu di doxal ndonol jubbanti ak yar ak defar doomu aadama ba mu mën a jubóog boroomam jubóog boppam jubóog penc mi nga xam ne ci lay dund ñu ngi koy def nag ci rajo asfiya yi 97 point 3 ci Dakar 103 point 9 ci tiwaawan ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak top ngeen bal ñu xaq ya rabbi wajal lana way wi mo nek di taw bo xamni lépp lu deewon def ñukoy dundalal a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وخلفائه ذوي الفضل والجاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان والعقيدة نجلن دي نيوات دي زيارة دين بالو حق دين di ñaan yàlla mu boole mbokki umma islamiya bi yépp ci tomb boo xam ne xaw na indi coow ba tax na mbokk yi di woote rek bëggoon cee xam lan moo di taxawaayu l'islam ci événement bii ñu fas ci indi waxtaan woo xam nak. dañuy ñaan yàlla rek man mi koy wax ak ñi may déglu ñu ubbi sunuy dënn ak sunuy xol déglu ci rekk li ci boroom xam-xam yu wax te bañ a sukkandiku ci passion ak bànneex ak parparloo ndax daanaka amul benn njëriñ diine ji ñun ñëpp ñoo ko bokk ki yàlla nangul ak ki yàlla nangulul ñun xamuñu ko dañuy ñaan yàlla ëllëg fu nit masa taxawee wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ak lu mu sàggan sàggan rek yàlla nangul ko yërëm ko loolu la ñuy ñaan yàlla te yàlla nañ ko yàlla boole defal ñun ñëpp yàlla xajoo nañu te yàlla buur bu yaatu la buur bu yaatu nag xajoo na jaamam yu yaatu yàlla nañ yaatalante yaa ayuha alladina amanu ida qiila lakum fafsaxu na ngeen na ngeen yaatal waaw ku yaatal rek yàlla yaatal la fa tabarakallahu yàlla nañ yàlla yaatalal ñun ñëpp euh, dafa am benn vidéo boo xam ne benn noddukat ci Koweït bi muy noddu ba agsi ci hayya alal falaax daf ko remplacer sallu fi manazilikum nangeen ngeen resté ci seen kër yi ngeen jullee fa fekk na booba autorité ya nekk ci réew ma ñoo joxe ndigal ne julli ajjuma yi xutba yi ak julli juróom yépp yiñ daan defee mbooloo ci jàkka yi nañ ko defee ci kër yi mu nekk ay mesures yoo xam ne lañ ca jublu moo di jéem a ak jéem a fagaru bañ virus coronavirus bi nga xam ne bii tey mi ngi tasaaroo ci àdduna bi ñu bañ mu gën a law ba gën a laal couche yépp ñoom loolu lañ ci jublu woon mu mel ni dafa am ñoo xam ne dañoo laaj ne ndax loolu mbokk mi def ci ne fii fi manazilikum na ngeen reste ci seeni kër yi ngeen jullee fa ci biir noddu gi ndax loolu am la ndëgër laay ci sharia walla déet من والحقيقة أنه لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للمؤذن أن يقول الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم بروم خم خمي أم البن ورنت بني بوي أم تيني نيوم نيب بوك نانجو بو تينا داغان بي واخني نغيم جولي سي سيني كير بو فكانتني بي ام مو خم غانت لولا تاولا wala muy ban wala muy sedd bu méttee métti wala muy ngelaw lu méttee métti loo xam ne tax na ba nit ñi mënuñoo génn julli ci li thubuti dhalika an nabiyi sallallahu alayhi wa sallama te lii li tax mu mën a nekk mooy dañ koo jële mu sax dëgër ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam léegi ñu ne waaw fan la ñuy waxe sallu fi manazilikum ñu ne mën nañ koo wax ci biir noddu gi wala ki nodd nodd ba àggal tofal ko ci ñaar yépp sax na wa jaat sunnatu bi taxyiri almuadini fa imma an yaqula hada alqawla بعد تمام الأذان وإما أن يقوله بدلا من قوله حي على الصلاة نينا سخنا سخنة سنة تنلو نانيو نانيو كي نود غيناو بو نودو gi matee با نوبي mu wax sallu fi rixaalikum aw sallu fi buyutikum wala mu wax ko au lieu muy wax xayya ala salaa mu ne sallu fi buyutikum jële nañ ci naafi mu ne addana bnu umara fi laylatin baarida bi dajnaana thumma qaala sallu fi rixaalikum nee na sayiduna abdullahi bnu umar dafa noddu ci guddi gu sedd ci dëkk bu ñuy wax dajnaan من نجم جلش سينكر فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر من سنگ بكت دانا ديگل أجي نود جي موي نود بو نود بنوبي مدور وخ ألا صلوا في الرحال نود بنوبي نبو كين يود نغن توك جولي ci guddi goo xam ne dafa sedd guyi wala muy taw lool te fekk ñu nekk ci tukki kon bim ne ala ifrihi mooy wane ne kon ala sallu fi rihaali tegtal na ci ne danañ ko wax ginnaaw noddu ba noppi wa qaala alxaafidu bnu xajar raximahu llahu fi lxadiisi sarixun fi an alqawla almadkura kaana bada bada faraagi al adaani mu ne wax jii de li muy tegtale mooy kon loolu dañ koy wax ginnaaw bu ñu nodde ba noppi am benen hadith boo xam ne wa warada xadisun sarixun fi anna qawla sallu fi rixaali am na beneen xadis bu leer nañ buy tegtale ne sallu fi rixaali mën na remplacer xaya ala salaa warawal buxaariyu ci xadis boo xam ne 666 muslim 699 te lafzu bi muslim moo ko moom mu ne abdullah ibnu xaaris جلنا عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير دفا وخنا كيلون نود تي بس بو خامني داف دون تاو مونيكو سو وخي اشهد ان لا اله الا الله واخ اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاه ويقل صلوا في بيوتكم بودي نود با اكسي حي على الصلاه نغا وخني جولي لين سيني كير ولا سيني نيك قال فكأن الناس استنكروا ذلك وملني نتني ني دانيو خاوا ود دال لي مو دالول سين خيل فقال اتعجبون من ذاك داخ دا نين دي ييمو سي لي ماكو سنت قد فعل ذا من هو خير مني لي ماي واخ دي فتبارك الله كوما گن فوف دف نكو ان الجمعه عزمه واني كرهت ان احرجكم فتمشوا في الطين waddax bi moom la leen kat maa ngi leen di xamal ne ajjuma moom kenn werantewul ne lu war la waaye nag bugguma leen a teg benn coono ngeen di dox ci ban bi kon ñaar yépp dagan na fa tabarakallahu boo demee ci kitaabul um lil imam shafii radiallahu anhu nee na kii noddu mën naa wax sallu fi rixaalikum aw sallu fi buyutikum ci biir noddu gi mën na koo wax itam bu noddee ba noppi ndax ñaar yépp sax na waaye daal bi gën nag moo di boo noddee ba noppi nga wax ko pour nodd gi bañ a changé bi loolu amee loolu indi benn discussion bu méttee métti <clears throat> ñi nga xam ne bii ñooy di boroom xam-xam yu man yu mag ya nekk ci al azharu sharif ñoom dañu génne benn fatwa ne daal dagan na ñu taxawal julli jumaa yi ak dajaloo yi ximaayatan linnaasi ñu def ko pour aar nit ñi nit ñi fegu ndax alwiqaayatu xayrun min al ilaaj mooy tëndiku jàngoro ji nga xam ne dafa tasaaroo ba lëmbe àdduna bi ay bakkan yu bare bare bari di ci faatu te ñun ba léegi nag senegal ñu yaakaar ne ak seegul ci ñun wala ba léegi gëmuñu ko léegi nasu fatwa bi laa bëgg a jàng moo di ne dañoo wax ne fii daw ima tusfiru anhu taqaariru saxiyatu al mutatabiatu min surati intishaari virus corona aw Covid 19 bu ñu sukkandikoo ci rapport yi nga xam ne ñiy gëstu ci wàllu wérgu yaram docteur yi ak médecin yi wax nañ ko ci ne jàngoro la joo xam ne dafa gaaw a tasaaroo lool ak dama dama dem ba nekk pandémie nga xam ne léegi àdduna bi yépp ku ci nekk jot nga sa wàll wala réew yu néew ñoo amagul ci diggante bu gàtt ak itam wa tawatur al ma'lumat lmaalumaati tibbiya ak itam liñu jël ci médecin yi ci ne al al khatar haqiqi lil virus huwa suhulatu wa sur'at intisharihi manam danger bi nga xamne bi mo nek ci coronavirus modi di yomb gu mu yomba tasaro ak gaaw gu mu gaaw tasaro wa anna al musaba bihi qad la tadhharu alayhi a'raduhu ki nga xamne ne daf koo dal man na am ben symptôme baña baña feñ ci mom amul ben màndarga buy feñ ci mom na yore nako wala ya'lamu annahu musabun bi man nako dal ba nopi ta du xamne mom dal nako wa huwa bi dalika yanshuru al adwa fi kulli makanin yantaqilu ilay suko defé man na tasare jàngoro ji man nako koo wàlle ci place bu mu dem bu mu dem rek man nako koo ñam fa fek ta du ko xam te ku ci nekk xam na ne min aadami maqasidi shariati islam li ñuy tuddee maqasidu shariati waaw nga xam ne bii fa tabarakallahu boroom xam-xam yi bind nañ ci lu bare bare bare bari ku jàng usulul fiq da nga xam ne daanaka mooy yore sharia te benn ñu koy tudde al daruriyatul xams wala ñu koy tudde al kulliyatul xams moo di xifdu nafsi xifdu diini wa xifdu nafsi wal maali wal irdi wal nasli wala bok wal aql waaw muy juróomi yëf yo xamanteni bi fa tabarakallahu sharia daf ci bàyyi xel lol lol lol lol mom al kulliyatul khams yoy ñuy wax waaw te moo di almaani wal hikam wal gaayaatu allati ash-shari'u fi at tashri waaw moo maani ak ghayat yi nga xam ne musharri bi samonté ak mom ci bépp xukm boo xam ne bii dana ko indi di ko indi ci kaw jaam ji muy xifdu diini xifdu nafsi al ird al aql al maal fa tabarakallahu muy juróomi mbir yoo xamante ne bii la ca aju defe naa ne borom xam-xam yi war nañoo gën a génn waxtaane ko ak njaboot gi ñu gën koo xam bu baax a baax a baax a baax كم كدك بكون من أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار بكون مقاصد يغنى مك مقاصد الشريعة مودي سام بكاني آر بكاني فكو تي لب لوي دانجي ولا لب لوي لوف كون بروم خم خمينينا نيو نيجي جيل سين رسponsابيليتي بو خمنا تي دين لنكو تك ñi ngi wax mboolem responsable yi nga xam ne ñoo yilif njaboot ci àdduna bi yépp xamal leen ne leen dagan na ci sharia ñu arrêté julli juma ak julli mbooloo ci réew mu mën a nekk ngir mooy tandiku tasaaroo jàngoro ji ñuy wax coronavirus ndax xam nañ ne bu tasaaroo dana faagaagal lu bare bare bari yàq ay faat ay bakkan yu bare bare bari yàq alal ju bare bare bari waaw dana dem a dem sax ba faf jumaa yañ doon wax ak jàkk yañ doon wax ak daara yañ doon wax ak alquran yañ doon jàng dootuñu ko tal ku ci nekk xam na ne mbas baaxul koo xam ne kii dem nañoo dem ba ñam daan dal sax néegu ñax yañ daan nekk dañuy mujj di ko lakk nit daana génn àdduna kenn du ko ñemee laal gas bu mu xóot rek kenn du sang kenn du sang kenn du jullee dañuy dugal rek ci biir bàmmeel ndax xam ne dafay gaaw a wàlle kon ñoom nee na nee nañu waye taayyun wujuban ala al marda wa kibaari sinni ñi nga xamne dañoo febar ak ñi nga xamne seen âge dafa magge war nañoo des fi manazilihim wal iltizaamu bil ijraat al ihtiraziyya allati tuclinu anha assulutaatu almuxtasatu fi kulli dawla la ñu wax ne daal ku ko def mucc te mooy toog ñépp war nañoo sàmmonte ak moom wa adamu alxuruj li salaati aljumua nañu toog ci seen kër julli tisbaar awil jamaati baadama taqarrara tibbiyan wa thabata min al ixsaati alrasmiyati intisharu hada almaradi wa tasabubuhu fi wafayaati alkathirina fi alaalam nañu jullee ci seeni kër ginnaaw bi mu saxee ci ne recensement yi nga xam ne bii moo officiel ci ne ñu bare bare génn nañu àdduna te la ko waral mooy confinement biñ leen joxoon nañ def mulaasama seeni kër toog ba ba mbas mi dañ dañ koo respecté wul kon jaadu na ci responsable yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci réew mu mën a nekk ñu yulli def effort buñ mën a def jël itam mesure yuñ mën a jël fexe ba nit ñi toog bañ a génn fal muxaqiquuna min al ulamaai muttafiquuna ala anna al mutawaqaa al qariba kal waaqia boroom xam-xam yépp bokk nañu dëkkoo ci ne looy séentu te agseegul te léegi mu agsi mook lu agsi ba noppi ñoo bokk yem doone mukk mbir mi ak mais comme que ñu ngi koy séentu te laal na ay dëkk te taw dafa gaaw a wàlle te nit ñi tooguñu ñi ngi dem ak ñëw li ko indi ci suñu réew mi ku ci nekk xam na ne bitim réew la bàyyi ko ñëw te man mën naa wàll fukki nit wala téeméeri nit te duñ ko xam mbir mu gaawee noonu da ngay jàpp ne yagsi na ba noppi wa annama yuqaaribu shay'a yaxudu xukmahu lépp loo xam ne dafa jegeeg mbir dafay jël atteb loola wa anna sixata al abdaani jàpp itam ne wérug yaram yi min acdami almaqaasidi wal ahdaafi fi shariati al islaamiya dafa bokk ci maqaasid yi gën a mag ci raayaat yi gën a mag ci sharia al islamiya kon loolu mooy tegtal ci ne yo jaadu na yell na am na mashruiya ñu mën a gàntal jullik jumaa ak jullik mbooloo bañ koo def ba feebar bi keroog di yëkkati ko talaafiyan lintishaaril waba ñu def ko defuñu ko pour ne dañoo bëgg lu neex ma sàmba wala ñu neex ma dend wala dañ laa poñe mais sharia ci boppam moo la njëkk a poñe sa diine moo la njëkk a poñe fa tabarakallahu waaw ah, koo xam ne kii sax dañu taxaw jël jaasi teg ko ci sa wet wala jël fetal tiimale la ko ne la weddil yàlla sharia may na la nga weddi yàlla bu fekkente ne bi sa ñàkk sa bakkan da caa nar a ko ah, man kafara bi billahi koo xam ne ki da nga weddi yàlla dégg dañ la dañ laa forcé ci nga weddi yàlla nga tudd baatu weddi yàlla te fekk na yow sa xol waaw illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sa xol fees na dell ak ngëm yàlla waaye dañ laa forcé ne boo ko deful ñu faat sa bakkan sharia may na la nga nga tudd baatu kufr fa tabarakallahu kon loolu mbokk yi lu jar a bàyyi xel la li koy tegtale mooy sayduna abdullah ibnu abbas radiallahu anhu dafa mas a wax ki koy noddal fi yawmin matir ci bis boo xam ne daf doon taw lool taw bi métti mu ne ko soo waxee ashhadu boo waxee ashhadu anna muhammadan rasulullah fala taqul xayya ala salaa bul wax xayya ala salaa qul sallu fi buyutikum na ngeen julli ci seen kër yi comme niñ ko waxee woon sànq mu mel ni nit ñi dañoo weddi loolu mu ne ah pourtant ku ma gën nag def na ko nag te moo di sallallahu alayhi wa sallam ajjuma daal bis la boo xam ne ku nekk xam ne ne farata la yàlla ko santaane waaye bugguma leen a génnee fa tabarakallahu ngeen di ngeen di togo choono di dox ci ban bi dégg nga nit man na ci daanu dam nit man na ci daanu ñak bakanam auto man na ci ngiro ak leneen ak leneen loolu mbokk yi fa faqad al hadith ala al amr bi tark al jamaat tafadiyan lil mashaqqati al hasilati bi sabab al matar kon hadith bi liñ ci mën jóg jànge moo di ne mën nañoo bàyyi julik mbolo ngir moytandiku choono bo xamne dafa nara am ci taw te ku ci nekk xam na ne taw kenn du ko dendale coronavirus waaw wala chaque an an xatara hada اعظم من مشقة الذهاب للصلاة مع المطر كن رخصة بني جوخي تينا نانج اريت جماي اريت جاكي بو فكنت نبي مبس مملني دفع ووقوعه نيب جابني امر شرعي ومسلم به عقلا وفقها نانيو جاب نمبر لما خمنتني بي شرعي عن نغنكو خل نغنكو والدليل الشرعي عنها والبديل الشرعي عنها بو فكنت نبي دنجنا لبو جولي والسخ أملو بديل أملو لوكو رمبلاسي أملو لوكو ألترني waye bo julli wul juma sharia mayna la nga julli tisbar ñent rak ci sa kër tabarak wala ngeen dem ci place boo xam ne bi izdiham dafa am te fii fan nga fi mën a jullee ci place boo xam ne amul izdiham mbokk yi kon mbokk yi dañ delloo sa xel yi te xam ne feebar bii mbas mii ñun ni ñu ko néewale demewul noonu boo dégloo docteur yi nga xam ne ñoo jàng ba xam lan mooy médecine dëppoo ci ne feebar bu mel nii bu fekkente ni bi dafa am ñu yaakaar ne amul benn période buñ mës a tëj jàkka yeeg jumaa yi dafa fekk ne lu mel nii musul am lu gaawe nii diggante ñetti weer ay nang mi junni junni nit ñàkk ci seen bakkan dama dem ba hôpitaux yi dégg nga amatuñ fu ñu def nit ñi waaw médecin yi leen di faj fa feebar ñoom itam dama dem ba militaire yi ñëpp ñu mobiliser leen génne leen mbokk yi nañu xam ne mbir mu tuutiwul bu ko kenn foye te itam nag mbokk yi nañu xam ne diina ji ñun ñëpp ko bokk waaw ku ci nekk na nga rafet njortu ci sa mbokk te xam ne فتبارك الله نيوكو بوك دين جي نك دا فا ياتو شريعه بي دا فا ياتو فتبارك الله كون نك داغ سانتي بي اك خخ خي بي دا نك جاركو لي ني فيكو ديف تي تاكسي لنكو تك وانتهى الفقهاء وانتهى وانتهى الفقهاء الى ان الخوف على النفس بروم خام خام بي ديبوج نانيو ني بو فكنتني بي داغا راغال ني داغاي داغاي نياك سا بكان awil maal wala sa alal sax boo demee mën na ko koo awil ahl wala boo demee mën nañ laa wuutu ci sa ginnaaw njaboot faagaagal leen loolu nee nañu ay ngant lañu aadaarun tubiixu tarkal jumuati awil jama' ay ngant la yoo xam dana daganal nit ki bàyyi julli juma bàyyi julli mbooloo lima rawahu abu daawud an ibni abbasin من قول النبي sallallahu alayhi wa sallam abu daawud moo jële ci abdullah ibnu abbas من صلى الله عليه وسلم نينا كدق من سمع المنادية فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى كوخم نكي كي داغا دغ اجي نود جي تا امولو بن نغانت بور توبكو ني نكو لان موي نغانتلي مون موي nga ragal wala خوف او مرض نحن بوكي ليدو du نحن ليدو li تاي ragal tay ku بوولو nek tay koo taxaw di wax ak moom sax yaa ngi ragal ndax amul doomu jàngoro bi moom tam mi ngi koy ragal ci yow fa tabarakallahu jëkkër wóolootul jabaram jabar wóolootul jëkkëram doom papa sëriñ taalu bi ku ci nekk yaa ngi mooy tundiku kon mbokk yi am na lu xew kon hunaaka xawfun wa hunaaka marad bu fekkente ne xawfu mar xawfu amul marad amul nga lank bañ julli ji kooku boo jullee julli ga kenn du ko nangu mais bu fekkente ne xawfu dafa am nag marad am ci dëgg-dëgg kooku udrun min al aadar وما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه بفكنت نبي دنجين الدق مبسم إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فنجين فنجين دقني مبسم دا المنغفة بلين فدم بفكين أنت فأمتي صوف بين برب تفكي ينغفة بلين جين فرارا منه kon mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam li mu jàngale leer na ah man de ci sama dégg-dégg bu gàtt ak sama xam-xam bu gàtt sama alluwa ju gàtt yaakaar naa ne ñi julli ak ñi nga xamante ne bii dañoo war a arrêté fépp fu mbooloo di am gëm naa ne daal ci yoon lañ ko teg ci yoon lañ ko teg defuñu ko pour woyofal seen diine defuñu ko pour satisfaire benn gouvernement gouvernement yi yoruñu yoru suñu wërsëg yoru suñu dund suñu wërsëg ak suñu dund lépp yàllaa ko moom waaw defuñu ko itam pour ragal suñu amee kenn ku ñuy ragal yàlla la ñuy ragal yàllaa ñu moom moo ñu bind moo ñuy wërsëgal te moo ñu fiy jëlee ëllëg te suñu diine duñ ko jël mukk di ko tayle ngir ngir alalu àdduna inchaa allahu tabaraka wa taala ku ko jot ci ñun itam ñun xam nañ ne amul doyloo nañu yàlla fi zahiri wal batin kon sallallahu alayhi wa sallam dem na sax ba wax ne man lahu raihatun karihatun dem na bay tere koo xam ne kii da nga amee xet gu naqari nga fas yéene lor nit ñi dégg nga nga bañ a ñëw ci jàkk ci pour bañ a lor nit ñi fa tabarakallahu saa sallam nee na képp koo xam ne da nga lekk laaj wala wala wala wala wala soble fal yactasil na aw fal yactasil masjidana wal yaquut fi baytihi bu mu ñëw jàkk ji ne jullee ci këram kon mbokk yi tabarakallahu defe naa ne yaakaar naa ne kon daal ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla boo ñu dimbale kon gëm nañu ne feebar bii di mbas mii di corona ni mu gaaw a tasaaroo ni mu gaaw a ak li muy faagaagal ci ay bakkan ba léegi te amuñu benn médicament boo xam ne mën na koo faj jàpp nañ ne daal ngant la boo xam ne bii daganal na ak taxalluf ani salaati jamaatan dégg nga ak julli mbooloo ak julli juma loolu moo tax fa tabarakallahu boroom xam-xam yi mi nekk ci azhar ci ne bépp réew boo xamante ni bii natt nga daje nga ak say boroomi xam-xam ci wàllu médecine ba ñu bokk xam ne jàngooro ji agsi na fa dagan na ñoom ci seen bopp ñu jël seen ay matuwaay pour sàmm bakkanu doomu aadama yi sàmm nit ñi wala nga ne naan ne fa jullikat li muy baax baax mbokk yi soo wérul wala boog talluloo ko na nga koy defee sax du bokk na ko yàlla bëgge aji makka li muy baax baax soo wérul am ngant sharia teggil na la ko woor weeru koor li muy baax baax ku nekk xam ne ne kutiba alaykum siyaamu farata la ruknun min arkaanil islam waaye nag boo demee ba feebar am ngant nit dana toll ci foo xamante ne fii ci wéradi sharia daf koy teggil koor carrément ne ko bul woor del génne mut te ruknu la min arkaani min arkaani min arkaani lislaam tabaarakallah kon mbokk yi nañ delloo sa xel yi bu baax a baax xam ne ñun ñëpp ñoo bokk diine ji ñu waxtaan ci suñu biir rek waaw bu ñu waxtaanee ci suñu biir incha allahu taala danañu bokk juboo kon ñoom daal li ñu d'accord moo di ne bu waxtu julli jotee na noddukat bi jóg ne sallu fi buyutikum waaw bu ko defee nag kër gu nekk xool nooy organiser kër gi sax bu mbooloo ma naree bari ba nar indi raj raj loo fa tabarakallahu nañ ko organiser xool ba keroog mbir mii di dañ yàlla nañ yàlla dolli sutura lii daal mooy li nga xamante ne bii mënoon nañ koo tënkee ci lii nga xam ne bii moo xew ci Sénégal te xewul rek ci senegal monde islamique bi yépp yooyu ijraat la ñu jël waaw mu nekk ijraat ixtiraziya rek pour mooy na ko feebar bu bon bii nga xam ne ñun de ñu ngi koy néewal waaye ñu bare bari tiital nañ ñu te barakallahu boo dégloo waxtaan yi docteur yi wax ah ca dëgg-dëgg jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu ngi bàllu xaq ñëpp ñu ngi ñaan mbokk jullit yi boroom xam-xam yi ilimaan yi sëriñ daara yi asaatiza yi jàngalekat yi ñun ñëpp mbokk yi nañ bokk joxante loxo te xam ne diina ji ñoo ko bokk fa tabarakallahu diina ji ñoo ko bokk ñun ñëpp yàlla la ñu gëm moom la ñuy jaamu waaye nag ñu sàmmonteeg maqasid yi nga xam ne moom la sharia indi buñ ko jàpp buñ ko defee rek incha allahu danañ mën a bokk juboo هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنني باسم مولانا العلي الأزلي أبدأ نظمي هذا تيكونان ممتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي من سن بق بم مختار كبي تواون ما لين دي جوخ رانديفو بس إن شاء الله تبارك وتعالى تيمباخ يالله ديكونيان مو ديمبلنتي تي ديغنتي juróom-ñeenti waxtu ak genn wàll jëm fukki waxtu ci suba ci seen émission bu ñuy tuddee albayaan muy waxtaan yoo xam ne laayanti biir la ci wàllu suñu diine ak itam wàllu naka lañ ko war a dunde ci biir pénc mi ci rafetal jikko yi ci jéem a ànd ànd bu rafet waaye nag lépp itam ñu jéem ko tànqe ci téere suñu borom bi alquranul karim ak waxi sang bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam ak waxi borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko fi wuutu di doxal ndonol jubbanti ak yar ak defar doomu aadama ba mu mën a jubóog boroomam jubóog boppam jubóog penc mi nga xam ne ci lay dund ñu ngi koy def nag ci rajo asfiya yi 97 point 3 ci dakaar 103 point 9 ci Tivaouane ñi ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp ngeen bal ñu xaq yaa rabbi wajal lana way wii mu nekk di taw boo xam ni lépp lu dee woon ñu koy dundalal da nga bëgg a xam sa diine ak di dund tariixa cheikh Ahmed Tidiane Cheikh